donc c'est octobre rose bi dañu euh, euh, une campagne de dépistage pour les femmes euh, du ministère mais aussi les femmes de la sphère n'est-ce pas aujourd'hui le euh, 8 mars nous ñu bëgg commémorer daal formation en leadership parce que le thème nous avons xamante ne 8 mars c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la pandémie à la Covid-19 donc loolu moo comme dañu il faut que le leadership féminin affirmé nous xalaat ni que bala ngay wax nit ki mu positionné wu en leader il faut au moins nga jox ko dara nga renforcer capacité Nam sax femmes sénégalaises yi ñëpp gis nañ leen ci pandémie bi mu éclaté ba tay ci prévention bi ci riposte bi ah ci résilience bi mais aussi ci positionnement nga xamantene relance économie post Covid donc ñun ñëpp gis nañu femmes yi ñu ci taxawé waaye donte aussi taxaway taxaw am nañ taxaway bu am solo nous avons du dara aussi ñu capacité de faire Nous des choix des formations. donc euh, pandémie bi pandémie, nous avons def formation en présentiel mais nous avons def en webinaire donc avons formé 200 femmes 200 femmes yi nga xamante ne ci ministère bi ministère, ñuy au niveau central mais aussi nous liggéey ci région mais aussi femmes yi nga xamante aussi, aussi ministère bi dafa leen ndax ministère bi moo développement communautaire le développement communautaire mooy encadrer association yi nga xamante ne ñoo ci communauté bi te association yi nekk ci communauté bi xam nañ ne association jigéen ñi ñoo ci ëpp doole donc ñooñu la ñuy former tey dañ ko def tey ak suba di xalaat ni que modèle yu ñu leen di proposer ku nekk di nga ci gis njëriñam incha